pouvoir ñoom ñoo nekk opposition asalaam. d' accord mu mel ne point boobu leer na rek ñu jàll ci cinquième point bi mu ngi nekk attaque l' ex ministre conseil de Macky Sall muy Omar Sow mi nga xam ne mu ngi jël ay accusation yu grave di ko teg ci ndoddum ki nga xam ne mooy président Sall euh, Abdou Nguer noo gisee loolu ki nga xam ne moo nekkoon Omar Sow l' ex ministre conseil de Macky Sall. waa d' après Omar Sow lu mu wax ci président Macky Sall tam man duma ko mën a weddi parce que moo ñu ko gënoon jege. d' accord. yaakaar naa li mu ñun jege wu ñoon président Macky Sall moom jege na ko ñoo àndoon. Mhm. te ànd politique nag ànd bu yàlla taxul la ku njëkk wor gañe nga. d'accord képp ku njëkk wor ànd politique gañe nga kon président Macky Sall gañe na leen parce que jàpp nañ ne moom da leen a war. d'après ñoom dañoo exposé woon seen bopp di di di di di di gatsa gatsa ak Ousmane Sonko di defanteeg ñoom lu ne. président Macky Sall toog nekk seen patron ñu dem ba mu yàgg président Macky ñu gis ñooñu génn di ko ragal ginnaawam di ko tàggat di ko sàng am na seen diggante man na xaw ma. Mhm. Omar xëy na moom mi ko wax. bu dee am na kenn koo xam ne li mu wax laal na la. Mhm. te man te nga ko woolu ci yoon nga woolu ko moom chef naa dina la jox ay preuve yuy wane ne lii man maa ko wax. parce que nag am na yu mu fi proposé ba wan fi ay photo mhm. ay oto yu gaaree buntu kër nit ak war yooyu tamit. du lu neex a weddi parce que boo koy weddi tamit man bu ma demee bay weddi nit damay indi preuve yi wane ne li nga wax amul. ba ci coowal jag waaw maanaam bu ma demoon ba koy weddi. Mhm. damay indi luy wane ne ah kii li mu xamoon mais wax bu ma ci amee ñaari xel rek. Mhm. dama ci demee prudence. Mhm. te ki wax. dëggal boppam kooku laay gën a jox dëgg. d'accord maanaam yow mi toog ne diw joxoñ ko baaraamu tuuma. du ma ne waxoo dëgg parce que weddi dëgg bàkkaar la gëm aw fen moo gën weddi dëgg. kon tay Omar saw man lim wax lima ci xalat man sama xam-xam lima ci xam kese moy moñu gëna jëgë président Macky Sall te gisuguma ben nit buy tek ben acte buy wané né mhm. Omar saw lim wax amut. gis Anak ay nit diko wéddi ay saga ay li mais man duma jobé non duma duma jobé non xam man nan la jobé mhm. damay bëgg nit ki bu dee Wede koy wéddi nga taxaw nga né ko li nga wax du dëgg li mo am. mais man ni waa Pastef di weddee man du weddee noonu. waaw moo tax chaque jour bu may dal ci kaw Ousmane Sonko. Mhm. dama naan la lii la wax lii moo ciy dëgg lii du dëgg. Mm, nii la ko loolu rek laa ci